damay damay rafetlu euh, projet bi projet bi dafa nek projet bo xamni élément ministère bi yépp la jël amna non formel amna formel amna inclusion formation au métier yoy dafa di projet bo xamni dafa dafa am solo ki li ministère bi nekkoon ci loolu loolu la projet fek li ci am solo nak moy projet bi ñong koy défé ci sud bi Ziguinchor Sédhiou Kolda ak Kédougou mais lepp fi lañ koy xalaté and ci ak équipe équipe projet bi loolu dafa am solo leneen loo xam ne aussi dañ koy remarqué mooy en tout cas mébét yi amoon yëpp romb nañ leen benn rek moo ci xaw a sooxee mooy ñi nekk ci classe passerelle classe passerelle nag dafa am étude bu ñu defoon xale yoo xam ne nekkatum ci école bi te waroon faa nekk ñooñu dañuy defar ay classe di leen eh, tàggat di leen former bu ñu duggaat ci former foofu daal la xaw a sooxe te ñëpp xam na ni ñooñu tamit ñooñu ñuy ñuy ciblé dafa xaw a dynamique. tay nga fekk fi xalé bi suba nga fekk ko feneen loolu moy jafé jafé ji mais li ci gëna am solo té xamna ni loolu mom ñun ñëpp mën def moy capitalisation le résultat yu bax yi ci am yëpp nañ ko jël ñu intégrer ko ci dispositif ministère bi pour que vraiment ñu ni li ci projet ICAD la jógoon leen nak dafa am solo liggéey bi amna solo rafet na mais il faut ñuy communiquer li ñu gis fi daal vraiment war am nañ ci élément yoo xam ne war nañ ci taxaw dem ci ci plateau yi expliquer nit dem ci radio dem ci journaux ministère nako mais équipe projet tamit comme projet aussi nous ñu gën communiquer waxtaan ci ak di encore madame la secrétaire générale amul jot xamna agenda mais heure buñ amé soxla ci passerelle dama koy wo mu bay lepp lu mu mu di euh, le projet di direction ak service ministère